moy ñu fay leen jang peut-être 1 an 2 ans pour ñu spécialiser wu ci gënt a benen bi moy financement yi nga xamni xalé dañ koy soxla té ñu bëgg mu gaaw te nga xamni souvent lool mo leen di galancor pour développer sen activité yi donc euh, pôle emploi bi xam ngeen ni président la du euh, euh, nu mu di dugal na fa 4 milliards ndax ci 67 milliards yi nga xamni ci 150 milliards yi mo jëm ci financement ci am na ci 4 milliards. mais lool tout le temps président de la day wax nañuy baral suñu procédure nañuy wañi procédure yi pour que financement yi di gaaw mané ci loolu dinañ gëna encourager encouragé ñu jege pôle bi mais en même temps dafa am benn banque bo xam dama doon liggéey ak mom ci financement femme tax dama annoncé woon ni 100 millions lay jox les femmes tay yalla dogal na financé nañ 33 groupements ñu ngi demaat ci 67 pour boucler première phase 100 groupements mais dañuy demat benen 100 pour motal les les 100 millions ndax 100 millions pour 200 groupements la loolu maa koy continuer nous bi dama amone pour jàppale ndaw ñi également ni ma jàppale ñi ko jeunes moo tax tey ma annoncé enveloppe bu 50 millions boo xam ne dañ ciy tàmbale ak ndaw ñi 50 millions boobu banque bi ma doon liggéeyal ak famille moom laa koy liggéeyal ndax man comme li ma wax man damay jël caution bi en charge ubbi frais ubbi compte yi ak intérêt bi nga xam ne banque bi da koy laaj dama koy jël en charge pour may ko xale yi moo tax ma ne leen ñi nga xam am nañ projet yi taxaw pare nañu nañ xam ne am na enveloppe 50 millions mën nañ tàmbaleeg loolu su 3 mois jotee ba ñu gis ne xale yaa ngi remboursé ñu ngi correct ci liñ leen kii ñu daal di yokk dem ba 100 millions loolu tamit day and ak li nga xamni au niveau du pôle emploi mu ngi koy def pour gëna jappalé xalé yi mais également man amoon na liggéey ak xalaat bu ma amoon depuis bi ñu ci gouvernement bi ak waa DER ba waxtaan ci woon ak le délégué à l'époque waxtaan ak moom man ak Pape Amadou Ndiaye d'ailleurs ak ministre ab euh, nu mu tuddati du tourisme euh, Aline Sarr ñu ni ko woon dañu bëgg def un programme spécial pour Thiès ndax waa Thiès comme dugg nañ ci gouvernement bi dañ naan aussi kan lañ lañ leen di indil donc moo taxone ñu waxtaan daan ni instrument yi nga xamni président de la république tégon nako en place nañ ko def bénéficier wu waa malheureusement tardé won na nak mais tay paré nañu aussi ak euh, équipe bi nga xamni mu ngi der pour relancer wat dossier bobu waxtaan ak ñom pour que aussi waa tamit ndax quand même am ci lañ bok mérité nañ ko ñu xol nañ leen di def ba jappalé leen ñom it gëna bénéficier wu ci financement yi ak avantage bi moy ñun li nga xamni DER da koy laaj muy 5 ci financement yi ñun ñu dugalal ko xalé yi jëlé leen ko en charge nga xamni xalé yi duñ fay dara ñun ñooy supporter loolu lépp pour ñu mu gaaw pour ñu financer leen.